aousubillah bisimillah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi barke borom tuuba ñu ngi nuyu mbokki taal bi yëpp di leen ziyaara di leen baal ak di leen ko baal mu mel ni ci ndigalu sëriñ Saliou Fall ak mbooleem jëwlin yi mu liggéey bi ak mbooleem waa Majmahun Nurayni ñu yëgal mbokki taalibe yi ni fédération bi fas yéene amal yéene fas yéene naa amal ay formation formation yoo xamante ni bii pa dañ koy jëmale ci mbirum càmm muy production animale ñaari métiers yi mu concerné ci production animale nag mooy production de poulet de chair ak embouche production de poulet de chair moom ñu bari xam nañ ko waaye embouche moom su ko waxee moom mooy yafal ci diir bu gàtt lu tax ñaari métiers yooyu mooy ñaari métiers la yoo xamante ni durée bi muy jël guddul bu fekkee production de poulet de chair cinq jours la bu fekkee embouche 100 jours la 3 mois. coût bi koy defit seerul te it lu nit mën a boole ak la muy def la moo xam ngay jàng wala ngay liggéey bu ko defee contenu bi it loolu ñu wax it ñu bari yeewu nañ ci mooy ñu bari xam nañ loolu waaye ñu ngi ciy dugg it waaye ay jafe-jafe yu bari lañ ciy am li ko waral mooy njàkk xam ndax yar boo mënti gis rek day am xam-xam yu bari yoo xamante ni moom moo ko moom moo ko ëmb daal li ko dale ci choix bi mooy li ngay yar yan kiiteel la war am par rapport âge ak conformation bi yi yi ci topp naka la ñuy xonte ak lan nga war a xont mooy les besoins alimentaire les techniques de distribution alimentaire lu demee ci prophylaxie sanitaire bi médical bi yooyu yëpp ay xeetu xam-xam la yoo xamante ni nit ki mënu kaa ñàkk bañ a xam ngir mu yar na mu war a yare kon képp koo xamante ni ñëw na ci formation bi fédération bi am na yéene loolu moom boo ñëwee nga xam ko ci xam bu leer ba nga mën a jël métier yooyu def ko di ci yaxantoo di ci yaxantu comme na mu ware tey doo ci am yenn jafe yi ñu xam ni mercredi incha allah lay tàmbale le 10 ba mercredi le 17 niñ koy defee mooy ñaari cote de quinze lay nekk benn cote bi moom mooy def production de peau de chair beneen cote bi def embouche cote bi def production de peau de chair moom mooy de mu ñëw suba si bii def embouche moom mooy ñëw ngoon si bu ko defee dana am partie pratique ndax dañoo bëgg képp ku fi jóge rek nga am xam-xam boo xamante ni heure boo soobee ci liggéey bi di nga ko mën a def na nga ko bëggee. ñu xam ni jubluwaay bi du leen rek du dul jaamoo ko yàlla dundale ko sunna tey liggéeyale ko sëñ bi di ñaan sëñ bi nangul ñu tey nangul moo leen jullit barke bam tuwaa Xaadimu Mustafaa jërë ngeen jëf Ala nabi waladi Abdillah